mbokk yi saxoo di safoo télévision Sen TV ni ko Idrissa waxee woon ñu ngi fii ci dëkk bu sell bii di Touba fas yéene teewee màggal gi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moom moo ko uh, woote woon ne bés 18 safar nañu ko santale sunu boroom jamono ji nag ñu ngi ci dëkk bu sell bi waaye ñu ngi fi nga xam xamante ne moo di jannatu wax jannatu sa xel dem ci Cheikh mejo Thioune wax jannatu sa xel dem ci ki nga xamante ne moo di Serigne Saliou Mbacké mu baax mu uh, tedd ma jamono ji nag ñu ngi ci pencum sëñ Saliou euh, Cheikh Béthio Thioune ginnaaw bi nga xamee ni euh, kii di nag euh, xalifaam di sëñ Saliou Ndigal Thioune daal dina bawoo ca kër ga daal dina yegg fi nga xamante ne moo di ci penc mi mi nag ni ngeen ko gisee nii ginnaaw bi mu dalalee taalibe yi ñu daal di ziyaar ba pare daal dinañu yegg si ci li nga xamante ne moo di xéewalu yoor yoor gi ndax xéewal bernde doon na lu am solo ci wàllu màggal gi ba tax na nag ñi nga xamante ne ñoo di mbokku taalibe yi ñi ngi fi ànd ak mbégte ànd ak dogu ngir fas yéene teewe xewee yor yooru màggal gi dañu ci daal di jege kenn rek mu daal di ñuy xamle naka lay dundee yor yooru màggal gi euh, jamono ji jamono ji rek ñu xool yor yooru màggal gi na fi la ciy demee fi nga xamante ne nii moo di euh, pencub euh, Cheikh Béthio Thioune nga xamante jamono ji kii di Serigne Saliou Ndigal di yor lépp kilifa gi ñu ngi lay nuyu ñu ngi la fekk fi nga xamante ne uh-huh. màggal gi naka nga dundee jamono ji la première fois ñu def ko ci chapiteau boo xam ni entièrement climatisé ak tamit euh, la possibilité am ay traiteurs yu professionnels yoo xam ne amul rek rek lépp rafet na kon na nga xam ne daal ah, yëf yi yokku na. Euh, laata nag ñuy ñëw fii euh, kii di sëñ bi daal dina dalal mbokku taalibe yi ñu daal di koy ziar loolu naka nga ko dundee. bon c'est l'histoire qui se répète tubaab di wax wàllu day continuer. Cheikh Béthio bi mu wàcc liggéey ñu bëri jàppoon nañ ni yëf yi dinaa fi yem wala mu ruus waaye ku fi daan ñëw démb ñëwaat fi tey bu fekkee nit fi fekke di nga xam ne mbirum Serigne Touba wala moo xam ne du arrêté day continuer faw te loolu li tax mu mën a nekk sëñ bi daf fi bàyyi un héritier modèle modèle parce que moom moo ko façonné boppam moo ko yar ci métit moo ko wax moo ko yar ci xam li yell ci yoon wi moo ko xam li yàlla yar ci mu xam li yell suñu diggante ak Serigne Saliou ak njabootam gi loolu tax boo ñëwee vous avez l'impression que à part jëmm ji à part jëmm ji que Cheikh Béthio est ñu lay jaajëfal. waa kay jërëjëf. kon Fatou Abdou ni ñu ko teewloo noonu la. taalibe bi wax juróomi at bi nga xam ne Cheikh Béthio làqu na boobaak léegi waaye fii ci jannatu dara soppeekuwul jamono ji nag ñu ngi ci xéewalu yoor yoor gi ni nga ko gisee ci chapiteau bi ku wax màggal xam da cee am solo togg yàq daal dina rek waaye na nga koy ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko war a jëfandikoo lu ci am solo la te ku nga xamante ne nag noonu la ñu dressé fas yéene servir ci chapiteau bi nga xamante ne ni fii ci jannatu ci pencum Cheikh Béthio Thioune ñi nga xamante ne ñoo di mbokk taalibe ñu ngi koy def ak pas-pas ko def xol bu rafet fas yéene leen ko rek daal di séddale kon du yàgg dara Fatou Abdou dinañ leen digaat daje ci yeneen ci ay plateau fii ci Jannatul Mahwa daal di ci ànd ak Idrissa Diémé ak Ousmane Diagne. Ndeye Khady Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax.